Bienvenue sur Salam Vision. bismillahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaanal samay waajur maa ngi nuyu waa Salam Vision di nuyu waa bi di dugg ci hôpital yi di seet malade yi di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp maa ngi doxantu ko ci prison yi nag di leen ñaanal yàlla génn leen fa ñu ne di ñaanal suñu kilifa diina yëpp di ñaanal suñu kilifa aada yi di ñaan yàlla yàlla wàccee jàmm ci suñu réew mi feebar bi fi nekk yàlla jëlee ko fii tey nag. dama dañoo dama ñëw ci sama émission bi may faral di def àllarba bu jot ci waxtu bi muy salaam santé mais balaa may dugg ci émission bi toujours maa yee askan wi di leen wax ni leen ngeen protéger wu da ngeen di takk masque di utiliser ay gel ndax feebar corona bi luñ ci dëkk bi jógu fi ba léegi te ngeen moytu ndaje yi parce que loolu mooy indi problème bi loolu nag laa doon ubbee sama waxtaan. di yi ñëpp nag askan wi yëpp tey nag dañu ñëw di waxtaanee problème mu garab yi nga xam ni dañ ko dañ koy jaay fii ci Sénégal te garab yi dañ ko interdit depuis Europe ak Amérique garab yi jóge jële nañ ko fii euh, yàqu na depuis vingt ans léegi nag dafa am sama kuma fii tey ñu fas yéene waxtaanee mbiru garab yooyu def na ñuñ ci enquête bi nag enquête bi pareegul mais dinañ ci dem ba jeex maa ngi leen di présenté nag sama invité bi muy Ibrahima suma tey jii moom laa dalal ci sama plateau Salam Santé ma bàyyi ko mu nuyoo Souma maa ngi lay jox kàddu gi pour nga nuyoo. ok maa ngi nuyu ñëpp di sa sant di la remercier ci invitation bi lu wàllu santé mooy lu ñu ñëw ni donc euh, suñu gisee loo xamante ni du ce n'est pas normal foog ñu alerter population bi parce que ñëpp en fait toutes les personnes ont besoin de de la santé et si les personnes qui nous encadrent ne peuvent pas aujourd'hui assurer notre bien-être donc il y a problème quelque part et je salue tous les internautes de Salam Vision jërëjëf Ibrahima Souma waaw li ñu ubbee waxtaan bi mooy Ibrahima Souma yow tey da demoon benn hôpital bo bu nekk euh, ci banlieue bi ñu gën ko xam ci turu Dominique muy hôpital Talla Diop bi nga fa demee en tant que yow malade nga dem di fa garab mais bi nga xoolee garab bi bi nga xoolee garab bi bay jël ko danga nga danga da nga def say enquête ba xam ni garab bi Euh, yàqu na depuis deux mille deux mille six léegi ma lay laaj yow garab boobu nga demoon di ko ñu bindal la ordonnance boobu pour nga dem jënd ko bi nga duggee bi nga defee say enquête ba xam ne garab bi yàqu na depuis deux mille six léegi yow eh, garab boobu dama lay laaj tey boo ko jëloon ci sa wàllu wér gu yaram yow fan nga jëm. voilà en fait euh, di di demande en fait euh, ORL bu Dominique. consultation yi et médecin bi daf ma prescrire benn donc euh, par curiosité moo xool garab bi ci internet et j'ai remarqué que le médicament a été retiré du marché depuis 2006 mais kii affaire bi daf sur le marché européen et sur le marché euh, américain ma mhm. ma pharmacie donc laaj pharmacien bi ma ne ko man lu ma jaar c'est que médicament bi bu ma prescrire nii dañ ko retiré marché bi mhm. euh, m'a dit effectivement il a beaucoup de médicaments que nous avons retirés sur les marchés européens et américains que nous nous vendons dans nos pharmacies il a plusieurs médicaments je lui dis ah de la DPA donc euh, euh c'est la direction euh, des pharmacies et des médicaments. Mmh. Donc, euh, quand il m'a dit m'a dit qu'il y en avait d'autres mhm. dans cette catégorie. Donc, est-ce que l'association des consommateurs ramène l'eau Donc, euh, loolu tamit euh, kii bëgg naa ko laaj loolu mhm. et lu tax ñu wàcce ay garab yu mel noonu fii mhm. parce que je pense que luy tindi ci ci tubaab bi c'est que soit dafa am manque d'efficacité soit dafa am euh, appelle les effets secondaires yoo xamante ne moom mën na la indi ay ay jafe-jafe mhm. soit dafa am danger donc euh, ma gën a gëstuwaat encore ci internet ma gis ay liste mhm. des médicaments dangereux des listes qu'on a surnommé la liste boo xamante chaque année ñu ngi koy mhm. euh, fas yéene naa moom delluwaat ci terrain bi. Mhm. ak liste bu ma am xool est-ce que ñu ngi koy jaay ci suñu pharmacie. tey tamit amoon euh, kii mais dama lay bàyyi ak yàlla. waaw leeral bi am na solo beneen question bi ma lay posé waat encore mooy yow tey da dem ba hôpital fii ci Guédiawaye moom it yëpp ci banlieue bi la. muy pédiatrie Guédiawaye foofu nga xam ne fa xale yi nekk fa lañ leen di fejee te li ma gën a jaaxal mooy xale yaakaar naa ne boo koy jox garab garab bi war na doon garab boo xam ni war na ko faj pour ëllëg mu bañ a am danger yow bi nga demee ba pédiatrie Guédiawaye tey danga fa jëlee tamit beneen garab boo xam ni daf la danga ko xool ñu retiré ko ci marché bi depuis ay ati at ma lay laaj loolu. loo euh, bu ñu demee bu ñu yéegee ci pharmacie euh, bu pédiatrie Guédiawaye. Mhm. ñoo àndoon ñu mhm. donc euh, je suis parti directement la pharmacie. ma mhm. tase ak pharmacien bi. donc euh, je dama ko ñëkk a posé question ma ne ko man daal dafa am garab boo xamante ne dañ ma ko prescrire mais garab boobu dañ ci marché bi. lool loolu jaaxal trop ma wan ko ordonnance bi mais loolu. waa Dominique la ñun duñ ko def fii. dañ mhm. mais su ma jëlee n'importe quel grappe fii fii pédiatrie la jëlee n'importe quel turu grappe fii su ma ko tapé c'est sûr et certain que grappe boobu c'est toujours consommable mu ne ma waaw donc man tal sama téléphone tal sama connexion jël benn grappe bu tudd Viscéralgine mhm. ma tapé ko et c'est le seul médicament que j'ai eu à taper. Mhm. ce médicament a été retiré du marché depuis tamit. moo won ko preuve yu leer date d'autorisation ak date de retrait bon daa daa xaw a ma xam ne kii juste employé la mais euh, dafa ne dafa wax loo xamante ne ah, lu ma xaw a touché parce que dafa ne carrément est-ce que du du euh, côté xaalis bi moo tax ñu sotti ko et j'ai l'impression aujourd'hui man sama sama xalaat lu may jox c'est que laboratoire yi pour bañ am Euh, faillite wala pour bañ a teg continuer di jël grappe yooyu di ko sànni Afrique li lii lii ma trop parce que état bi l'état est complice et médecin yi prescrire euh, grappe yooyu tamit day complice donc mais maa ngi gëstuwaat encore ci problème bon tey lii mooy première chose euh, lii dal nañu ñun ñëpp ah. mm-hmm. day am ku jóge Europe indi ay grappe lu ay Doliprane mm-hmm. ay mm-hmm. ay ay grappe ñu jóge Europe. et à chaque fois soo defee constat grab yooyu. ñoo gën a efficace ñoo gën a baax ñun suñu même garab bu ñu jënd ci pharmacie donc soo dosage yi bokkul. Mhm. soit ñun day am ay contrefaçon ci biir pharmacie yi. et loolu ñëpp gëstu leen loolu koy kii. internet bu ñu seetaan yëpp. Mhm. ku si xool dina dina xalaat pourtant loolu dëgg la parce que dal na ma man. sama mhm. bopp bu jógee États-Unis yónni na ma grave wala ku jógee France wala leneen. man naan garab boobu moo am efficacité mais man dini même garab ci pharmacie bi du am effet. Mhm. donc ñun ban catégorie garab lay yori Afrique loolu tamit bëgg naa ko laaj. Mhm. et nous avons de association des consommateurs. Mhm. mais cette association là est ce que ñu ngi gestu bu baax parce que consommation du lekk kese. consommation ça peut. Euh, ci lekk lay doon mhm. ci ci faju mhm. hmm, ci énergie mhm. li yëpp consommation la foog ñu yatal consommation bi et ñu gëstuwaat loolu jërëjëf euh, suma leeral bi ba tey am na solo mais man li ma lay laaj mooy ndax euh, ñun tubaab yi dañuy jël seen mbalit di ko xëpp wala ñun euh, africains yi ñun africains yi ndax suñu président yi ñoo faible wala ñun dañuy jël duñu minimiser daal comme def ñu daal comme ñoo xam ni duñu ay nit wala dara parce que garab bu baaxul lu Europe ñu indi ko Sénégal man li ma gën a naqari mooy xale yu ndaw yi xale ndaw yi parce que conséquence bi bu mais ëllëg la parce que tey ji boo jëlee xale di jox parent mu ñëw ci yow jox la xaalis fay la pour nga fejal ko doomam nga di ko jox garab boo xam ne périmé na depuis ay années kooku ëllëg doomam sant doomam nan la mën a demee euh, man moom franchement lu ma gis sax c'est que suñu suñu président yi. Mhm. ñooy ce sont des marionnettes. Mhm. donc euh, et on on a on a plusieurs cas comme ça hein, que c'est pas que dans le domaine des médicaments puis récemment seetaan naa benn vidéo bon ci benn supermarché boo xamante ni. liste euh, franchise européenne la. Mhm. ñu gis ay ay meew yu périmé. yu mhm. yàgg et di ko jaay à moitié prix. Mhm. donc déjà c'était une vidéo qui était kii donc service d'hygiène la bëgg a xam. lan parce que gis naa ñu romb ci ay boutiques yu ndaw di di def ay enquêtes ci loolu mais lu tax du grande surface yi di surveiller loolu. lu demee ni <laughs> donc. C'est déjà le premier danger que nous avons. Mhm. Nous sommes, nous sommes euh, sous, sous la monarchie européenne jusqu'à présent. Mhm. Et comme euh, sous directeur Louis, euh, qui, Samir Sek, Louis Tam Diwar, nous avons nos valeurs et nos traditions. Mhm. Nous avons aujourd'hui euh, les moyens de nous soigner traditionnellement et des moyens efficaces te lu gën a gaaw c'est que tubaab yi léegi ñu ngi gestu suñu cosaan boobu. ñu ngi jël sunu suñu aloe vera. Mhm. Euh, yeneen garab yu kii ren ak euh, garab bi ñuy am fii. Mhm. pour pour ko faj pour euh, seen population. Mhm. donc ñun potentiel que nous avons dans chez les praticiens. pourquoi on ne peut pas exploiter ce potentiel là. pour pour notre survie. donc ça c'est c'est l'État qui est faible. L'État est faible. Mais être faible au point de sacrifier sa population, c'est pas normal. Parce que ces personnes qui nous dirigent, du Fadoufi, de Idem Europe, euh, kii seen yaay seen pap seen euh, doom yi dañuy bañ ba du ñuy woo seen sax fii am na loo xamante ne moom loolu laa doon wax récemment je fais mais Macky Sall a dire euh, qui avait voté une loi pour interdire les doubles nationalités mm-hmm. mais tous nos cadres toutes les personnes, ressources, et qui ont des moyens, même chez les artistes musiciens, mmh. chez nos présentateurs télé, tous ces enfants-là sont nés à l'extérieur. Donc ces enfants-là, ne peuvent pas nous diriger si on se base sur la logique de Macky mhm. il faudrait que ça change. Mhm. parce que sacrifier une population, la santé, mhm. c'est la population. Et il y a beaucoup de polémiques. disons qu'on veut, qu'on veut, nous, qu'on diminuer la population, ainsi et tout. Je ne suis pas trop dans, les, mhm. parce que lu ma lu ma gëstuwul bu baax du ma si wax. mais état bi man personnellement. Mhm. je me dis suis père de famille. Mhm. am na ay doom hmm? am na ay yaay am na ay bàjjen am na kii j'ai je suis membre d'une famille. et aujourd'hui tiit naa trop ci suñu santé. et l'état est complice. dëgg la jërëjëf suma comme nag euh, émission bi Salam Santé te dañu nekk ci wax garab yu baaxul yi te émission bi yamu fi enquête lañ ci enquête lañu ne te bëgg nañ ko topp ba mu sës ba am ci preuve leer nañ ba nga xam dañ koy teg ci table bi askan bi ñëpp jariñ ci parce que li ñuy def nii pour àdduna bi la li ñuy def nii pour ñun ñëpp la suñuy yaay suñuy papa ak suñuy doom ndax tey ji wérgu yaram sa doom bu ko amul bu ëllëgee du mën a diriger euh, dëkk wérgu yaram sa yaay bu ko amul yow yaay sonn ci moom di ko di ko fen moo tax nag lii nag émission Salam Santé bi tey enquête la bu ñu ubbi boo xam ni émission bi yamul fii tey ci affaire garab yi nga xam ne yàqu na bu yàgg ñu di ko jaay Sénégal dañuy continuer di xeex di def combat bi ànd ak waa askan bi ànd ak Sénégal yëpp ànd ak monde bi yëpp pour xeex ko parce que tamit xeex ko mooy suñu jàmm mooy jàmm population bi léegi Ibrahima Souma dama lay wax looy tàggoo tey ba beneen yoon parce que dañuy continuer émission bi. d'accord comme mes xarit yu ko waxee hmm, lii enquête bu ñu ubbi la dinañ si am ay preuve yu leer dinañ jéem rentrer en contact avec les personnes ressources mm-hmm. pour qu'ils nous donnent des éclaircissements. Mais c'est eux qui, aujourd'hui, nous voulons tirer la sonnette d'alarme. da leen gëstuwaat lu leen mën sandi bindi mm-hmm. am na internet mi ngi fii yéen dem Google tapé tour grappe bi grappe boobu est-ce que mi ngi ci sur le marché toujours ou pas mm-hmm. da jël habitude boobu bu leen tëb di jëndi Euh, donc voilà je vous beaucoup donc euh, et allah moom début la dinañ ko mottali dinañ ko topp ba mu sës incha allah. waaw jërëjëf euh, waa Salam Vision maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di wax ni émission tay bi moom émission la boo xam ne spéciale la parce que dañ ko nar a topp dañ ko nar topp ba dinañ ci def émission yu baree bari bari bari bari man ak sa sama invité bi. parce que ñu ci enquête bi te ñu ngi ci sur le terrain di dem ak a ñëw li ma ubbee woon nag laay tëjee di remercier ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaanal waa Salam Vision di wax ni Ablaye Diouf Sarr encore une fois maa lay interpellé waat nga jàppale banlieue bi jàppale askan bi parce que sonn nañu masque yi niñ am na ñoo xam ne amuñu ci mënuñ coo lu mu nekk nekk nekk lu ndaw ndaw prix bi am na ñoo xam ne tal nañu leneen lu dul ay masque ak gel ma lay ñaan encore une fois santé bi yaa ngi ciy def lu am solo ñëpp wax ne xam nañ ko gis nañ ko teg nañ suñu bët mais dañ lay ñaana ñaan nga gën a def lu nga gën a yokk askan bi surtout banlieue man su may kaas banlieue lay kaasam te di wax ni nag émission tey bii émission buy continuer la maa ngi remercier ñëpp di ñaanal salaam Vision mu affaire muy gën a jëm ci kanam maa ngi remercier nag ñi nga xam ne ñu ci ginnaaw di ñu filmé nii di liggéey liggéey bu am solo te gisuñu leen di remercier ñëpp Ibrahima Zuma maa ngi lay remercier ci beneen émission man ak yow incha allah ak enquête bi nekk leen ci